ñu ne tent bi maa ngi ko am jëm tent bi waaye baax waaye ma yow yaa gis ma def tent ma gis ma def tent waaw maa ngi mos a yow depuis ñu def nii de fii du Égypte de dañuy xeex lu ñu nit engagé yëpp baax ma la may wala jaaxal pour wala yaa gaare de dina tent bi maa ngi ko dina tent fay fay waaye fay yow yaa gis ma def tent fay mu sebu def tent waaw man yàlla mos a yow depuis ñu def lii de. suñu coow bi dañuy xeex lu dañuy xeex lu ñu nit engagé yëpp bàyyi ma la. mooy wala jaamu. wala yaa ko ana gars yi ñëwagun ay ca bokk <laughs> nga booy <laughs>